wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi saw ridwaani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yi fi daje yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jottali ay kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Abdou Latif xalifa Cheikh Issa Diène ak rakam yu baax yi ci ginnaawam ak turu njaboot gépp kàddu yi nag kàddu sant la ak kàddu ngërëm ki ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy njiital murid yi di xalif général de murid sëriñ bi nee na mi ngi koy sant di ko gërëm di yeesal kóllëreem ak moom ak taalibeem digganteem ak sëñ Touba ci moom ndax nee na ba mu ci yónnee dalal nañu ñu jotali ko ay kàddoom mu sant gërëm ñaan wax digganteem ak sëñ bi ànd gu yàgg goo xam ne booba nee na soxna muslimatu mbàkke bintu xaadim rasul di waajuru cheikh abdou salaam mi booba mi ngi ci kër gi mu di ko fekk si di ko siyaar si sant ak sëriñ bi bind kaamilam bu njëkk wax na ma ne bu keram ko ne xottu bët laa ko bëgg bis bu ne ma di ko gën a bëgg bis bu ne ma di ko gën a bëgg wax na ma ko ñetti yoon te loolu firnde ji mooy lii ndax yabal na fi Cheikh Mouhamadul Fadal ibn Cheikh Abdoul Khadir yi yabal fi Serigne Cheikh Mbacke ibn Cheikh Abdoul Latif la taala anhu dib jarbaatam dib taalubeem ñu ñëw taxawel ko bis bi kon la ma waxoon lépp def na ko la ca topp mooy sëriñ bi nee na mi ngi sant rakkam yi mbokkal Cheikh Issa ka ca jiitu di Cheikh Abdoul Alim jenn ka topp mooy Cheikh Abdou Salaam ak soxna may mënatu jenn mi nga xam ni seenub jigéen la di sant doomi magam yi nga xam ni lépp lu mu leen woo ñu topp ko ca di ko tàmbale ca ka mag ba ci ki mujj di santit sëtam yi ak doomam yi ak jarbaatam yi ak tël bi mi cant gi ci des nag sëriñ bi nee na mi ngi koy jëmale ci alxaaji mbay Touré di ñaan suñu boroom may ko fan wu gudd ànd ko wér amiin cant gi nag di ko jaarale ci wasiilaam sëñ Abdou Latif Touré mi nga xam ni moo jiite kër sëñ Mor Touré nee na cant gi nag lus di wax la waaye lus di gislaat ndax nee na barab bii ci barab yi sëñ Tuubaa yi la bokk mhm. ndax ki nga xam ne moo ko saj kenn la ci waa kër sëñ bi di jàmbaar joo xam ni jëfam yépp ay guddeem ak i bëccëgam nee na sëñ Tuubaa la ko joxoon ay yëngutoom yëpp moom la ko joxoon amul guddi amul bëccëg lépp lu neex sëñ Tuubaa neex yàlla neex yonante bi bu xëyee ci lay xëy ci lay gont ci kanamam ak ci ginnaawam nee na fii li ko fi indi woon mooy gàddaay te di léebu boo xam ne Sëriñ tubaa moo ko léebu ndax booba njëreem yëngatu yi bari na lool ci moom ci digganteem ak bànnee aadama yi am bis mu nuyu Sëriñ tubaa sëriñ bi ni ko ardulaahi waasihatun ardulaahi waasihatun la ci topp mooy fatuhaa jiroo fiihaa mu xam ne loolu moo ci topp mu gàddaay fekk lu jiitu loolu sax àll yi mu toj yépp da koy tàmbalee ca kajoor di wër ba ñëw Cees dem ba mbuur di ñëw dem ba ngengineew di ñëw ba ñëw fii mu jël ñaari suuf benn ci barab bi ak beneen barab wan ko sëñ Tuubaa ci niñ ko nettalee ci ma dégg ko ci mag ñi mm-hmm. ba sëriñ bi xoolee suuf si daa daa dal ci suuf sii ni ko siidee man mii la ko yàlla mooñal ma war ko dëkkee waaye rafaatal naa la ko kon fii ci barab bi sëñ Tuubaa yi la bokk bu ñu waxee loolu loolu mooy firnde ji ñaanal ko ci waxanteeg moom la muy waxanteeg moom jox ko suuf mu ñëw fii ci marché bi soxna Xadi Joon moo ma ko nettali te nee na moom moo ko nettali <laughs> ak ak garab nga fi woon gu mag ñu wàq ko fa gas ko suul foofu yàlla atte ba ñuy def marché bi foofa la marché bi tombeel nekk marché bu wuyu boo xam ni gis ñu benn ci région bi ak département bi bu ko gën a ëpp ak wuyu ak bu ko gën a nangu ak bu ko gën a barkeel ñu ne mu ne fa nag di liggéeyal sëñ Touba ànd ko ay jëwriñam mu ne su leen lim bañ jeex waaye mënees na caa def ak junj ñenn ñi yóbbaale ña ci des ndax bañ a yàgg téye kilifa yi diir bu yàgg bokk na ca sëñ Ngagne Tane ni radiyallahu taala anhu ak sëriñ moor Touré di maam ci sëriñ Abdoulatif Touré mii mi nga xaye moo yilif Mbay Touré ak ci sëriñ Ibrahima Mbeng ak sëriñ Ahmadou Dam Sourang ñuyu bale ña ci des ñëpp wàccuwaay bi ñooñu am ci moom moom la ñu ci des ñëpp am bu ñu tudduñu leen ndax sëñ Isaa noonu a bàyyi Boy Jaañ ba mu jébbaloo ci moom ab séeréer la mu ni ko booy bis ni ki tey yaa ngañta ni ak Ahmad Dame Sourang yéen yem ci man buñ la ci Pastef rek lañ la kon ñi ci des ñëpp martaba wi liñ leen wàcce ñu ànd di liggéeyal Sëñ Tuubaa ku ne xam na ne barab bi bàyyi woon na ko xel lool lool lool lool ndax liy firnde ci loolu sëñ Ahmad Dame Sourang ku mag la ci moom ku làq ngërëmam la fii li ko denc suñ kanam sëñ Jabel Jaañ ñu ñëpp suñ Tuubaa ko boole ñoo ak seen dëwdi jaan ñu ngi fii suñ ndijoor mhm. fii ci suñ càmmoñ fi la armée li nekk ay mag yu bare ngi fi mhm. bokk na ci sëñ Seyid Kan mhm. bokk na ci sëñ Mor Latir di rakkam ci ñaar ndey bokk ndey ak baay ak mbooloo ma bari ci ay mag sëñ Ibrahima Basel mi ngi fii loolu sëñ Baara Jeen ma ma ko nettali ndax damaa ñëw nuyu ko mun ma mas ngaa dem ndànda ma ni ko déedéet mun a war nga faa dem siyaara sa taaxum maam di waxtaan ba yàgg mu ne sëñ Ibrahima Bassel mu fekk woon sëñ Touba ci tukki bi mi ngi fii la ko fi indi nag ay sabab la yoo xam ni mënees na caa leeral tuuti ba mu gisatul sëñ Touba ci sayir dafa gëlëm di dox rek ba egsi fii ba mu ñëwee toog fi nekk fi bàyyi léppam sëñ bi dim xëyam dim ngontam dem ba yàgg magitalu bi am ci ñu koy koloxu mu xamal leen ni leen fii ti bu neex andiwuma fi ana lu ma fi indi xet gi ma doon xeeñ sëñ Tuubaa ma di ko banamtiku fu ne dem naa fa xeeñu ma fii rek la ñu mu xeeñ ma loolu moo ma fi tax a mi ngi ci armeel yii te fekkoon na sëñ Tuubaa ci biir tukki bi loolu day wane ni sëriñ Tuubaa soo ko defoo mu defoo la boo ko jàppee mu jàpp la boo ko jàppee bu baax mu gën laa jàpp noo mel ci moom rek moo ca laalee noonu ngay feeñe kon nag ginnaaw bu ñu delloo sant mbay ndax taxawaay bii bu rëy la ci lislaam sëñ Touba bég na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bég na ci Cheikh Issa Diène bég na ci ak nattu ngoom ki fi nekkal sëñ Touba bég na ci ki fi nekkal Cheikh Issa ak njaboot gi na ci ginnaawam yëpp it bég nañ ci sant nañ ko gërëm ko ndax li cosaanal lii yàgg nañ ko fee bëgg waaye yàlla ci jëmmam la doon xaar nas nañ ko fi jamono yi sëñ Baara jenn sottiwul sëñ Abdou Latif mii gaa yi bay ab tool ni dañ koy def jumaa mun leen jumaa ab toolu attanu ko bàyyi leen masroxaat yi ma nekk muy projet yi ma nekk bu jàllee ñu seet nuñ ciy taxawe ba jot dajale aslëf jox ko ko ngir mu bëgg a taxawal jumaa yi woo sëriñ Mbay Ture mi ak sëriñam bi ak bokk yi wax leen leen dama bëgg a tabax fi jumaa te bëgg ngay jàpp ci mbay xamal ko ne ko sëñ bi def nga sa palaa ba noppi mun ko waaw mu jox ko ko mu xool ko plan booba tuuti ci bëtam mu raye plan booba dem wut plan boppam defar ko ci xolam bu rëy bi ci murid saadi xam di koy murid saadi xam ji mu yor indi ko jox sëñ bi xamal ko ni ko mel na man naa ko gàddu sëñ bi ni ko mbay jumaayee dafa xaw a diis de mu ne ko ñaanal ma rek sama ñaanal li ma bëgg danaa ko am mu ñaanal ko dërëmub kenn demu ci lañ njëkkoon a fàggu da koo dellaat sëñ bi ni ko tàbbal ko ci projet yi ñu lay liggéeyee wala nu la soob waaye moom jumaay ji loo juma ci kenn benn dërëm dërëmu doomu aadama demu ci lépp jëfam la lu ko nit jox sax day dem joxaat ko sëñ bi ngir la mu waxoon rek bëgg ko wéel kon nag sëriñ bi sant na ko bokk yi sant ko bokk yi gërëm ko la ci des rek nag mooy ñi dëkkee tund wi ñu am jom te te te te fonk lislaam te góor ci seenu taalube te te te ànd te bokkoo te jàmmoo di fas yéene di julli yi ci waxtu juróom salawaatul xam si yëpp ñu ko fi defe ajjuma ñuy teel a ñëw waaj waaj ko ndax loolu mooy sun ndam mooy sunub sag moo rafet moom la sëñ Tuubaa bëgg Seex sa boroom dëkk bi moom la bëgg ndax lii du lu yomb ndax jumaay ji ku dox xam ni ci génération yu mujj yi ci la bokk nekk jumaa ju yéeme joo xam ni architecte bi xanaa moo mën a xam la ca dem waaye nun mën nu koo xam ndax fu ñu ko xalaat passé na ko te ki ko defee du ko wax kon dañuy delluwaat rek di siyaare sëriñ Abbas Mbakke ibnu maam Cheikh Ibrahima Faati Mbakke Daaru Muxti di ko jaale sëriñ bi di ko jaale mbokk yëpp ak mbokk jullit yëpp di ko jaale Cheikh Mamadou Muntaxa ak sëriñ Bachir Anta Ñang ak sët yaag mbokki tërëbee ñëpp suñ borom xaral ko àjjana te wane ko ak sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhuma ndax waajuram moo borom dëkk bii benn lañ mas di nekk dara mës a tàggale démb rek maa ngi wax ni ku ñu wax sëñ Thierno Diop nettali na ma ni bi nga xamee ne sëñ tubaa jóge na ci géej gi te yónni Cheikh Issa mu woye maam na bi maam Thierno ñëwee ba dugg Cheikh Issa egsi mu sujjóot ci sëñ tubaa tóor na fa rangoñ yoo xam ni mën na am raxasu ba mu siggee da ko ne Mbàkke Issa mii di yaanu boole woon waaye jomam jomam jomam ji nga ko bàyyi woon ba nëgë ni bàyyiwu ko sëñ Tuubaa ni ko gees ni ko isaa mi loolu la séntu woon ci moom kon nag jom jooju nañ ko continuer ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci liggéeyal Seex Isaa ci jox leen cër yi nga xam ne moom lañu am ci noonu di diggal taalibe yi jaamu yàlla ndax moo jëkk mooy mujj yàlla kenn la amul ko ko ñaareel ñu gëm ko te wóolu ko te topp ko te jaamu ko bala ñoo jeexal ndax nit day jeexal doomu aadama day dem ba yàgg day jeex day jeexal yàlla nag moom du jeex du jeexal ba man yatawakkal ala llaahi fa huwa asbuhu képp koo xam ne da ngaa ngooy ci moom na nga xam ne ngooy nga ci buum goo xam ne du dagg mukk te sëñ Tuubaa loolu rek lu digle loolu la wone ñi mu àndaloon ñëpp da leen nëbb boppam wan leen yàlla ba mënatu képp koo xam ne mbooloo da laa topp nga nëbb sa bopp wan nit ñi yàlla ak yonante bi ak sëñ Tuubaa ñooñu duñ la mën a bàyyi mukk boo leen jóg loo ñu jóg boo leen toog loo ñu toog boo leen digg la ñu def ko boo leen digalu boo leen boo tere ñu bàyyi loolee nag buñ ci wéyee te booloo nekk benn bokk benn yéene di jàppandoo di bàyyandoo insha allahu lii ko sëñ tubaa jox kanam rek lay jëm ndax moom am na li muy am ci kanamu sëñ tubaa ak ci ginnaawam ndax mbooleem doom ji sëñ tubaa jur ñëw nga ci kër gi ñëpp ñëpp tàllal ñëpp ñaan ñëpp tàllal